waaw maa ngi tudd Saliou Ndaw maa ngi dëkk kàcc si Talamine côté Jumaa Juk waaw sama benn copain la Ousseynou Mboub jabaram moo moo xëyoon doon dem def def ko quoi ba muy def écho après mu jël taxi. fu mu doon def écho. Euh, fukki bunt. ba mu ci cabine docteur Ndiaye. docteur Ndiaye cabine docteur Ndiaye mu jël taxi ba mu jëlee taxi après taxi bi daal koy jël ndekete moo benn borom 4 x mu jox ko borom 4 bi borom 4x4 koy yóbbu. ba mu ko yóbbu après plus docteur Ndiaye. fan la fan la ko kojee. Euh, après moom expliqué fan la ko kojee quoi mais li mu ñu expliqué mooy jël na ko daal koy dugal si 4x4 bi borom 4x4 daal koy daal koy yóbbu. Ah, moom moom lañ dégganteel téléphone. ndaw si waaw. ah waaw moom lañ dégganteel téléphone mais mi ngi wax di jooy quoi. mais gars yi dañoo maskaw dafa nekkoon jigéen yooyu fu mu ne mi ngi cinquième mois am quoi cinquième mois am waaw dafa ñëw directement jox ko 4-4 bu noir waaw 4-4 bu yóbbu ko mais yéen bi ngeen jokkoo ak ndaw si ndaw si nu mu tudd Kébé Kébé Samb Kébé Samb bi ngeen jokkoo ak moom lu mu leen expliqué moom danañu koo jël dugal ko ci benn 4-4 borom 4 euh, ñoom ñu maskaw quoi ba ñu maskawoo daat koy taf gémmi non takk loxo yi mhm. takk tànk yi waaw léegi mais jox nañ ko mu woote quoi Mhm. jox nañ ko téléphone am moom mu woote. mais xamul fu fu fu mu ko yóbbu nii boobu ba léegi ñu ngi daw oto baa ngi daw boobu ba léegi mhm. waaw. numéro portable am la ñu wooyee. portable am la ñu waaw. waaw ala ngi foofu ci kër gi waaw non mënul wax moment yi ñu toll waaw. soog bee ko jàpp waaw soog bee ko jàpp. mais ñëw ngeen police centrale. waaw ñëw nañ police centrale ba def déclaration bi suñu benn tons bu naan Saliou Faye woo na bi enregistré na ko mais ah mais lépp ci numéro numéro femme bi la quoi portable femme bi la. waaw muy wax ak moom muy jooy ba booy ci ci ci wax ji ñi ngi dégg ma naan papa waxal la kii papa waxal la kii. ab paa la quoi paa la ak euh, benn gaan ak benn femme. benn waaw waaw. waaw dafa laaj deux cent mille. waaw deux la laaj. deux cent mille la laaj mais après ñu woote waat déggaatuñ ko. ba sànq la ko sama grand bi woo mu jot beneen femme femme bi ne ko ñu ngi yoonu Kaolack. soxla nañu ndimbal soxla nañu ndimbal à Thiès tellement parce que amuñu sécurité amuñu benn sécurité rey këf gaañ yóbbu fi mu ne ni tey ñu ngi ci enlèvement suba fan lañu jëm vraiment sonn nañ soxla nañ bu nit ñu dimbali ñu ci quoi vraiment vraiment. ñëpp maa ci gën a jaaxle ndax sama rakk la Mamadou Diop laa tudd. ndaw si sa rakk la. ndaw si sama euh, jabaru rakk la. ku góor ki ay doomu baay lan mais ñoo bokk benn kër man boo ko déggee chantier dama ne loolu loolu dama naa amul amul si Sénégal sax mais loolu mu ngi dox man dama yaakaar lii war du mës a mës a am nan lañ mën a fekk jigéen ñu wérul toog toggul toll si cinq mois de un pochette ba mu yoroon vingt mille francs ma nga ca ak carte d'identité moom la ñu jël moom la njëkk jël man bu ma jokkoo moom loolu la ma wax carrément loolu la ma wax moom jël nañ vingt mille francs yi jël nañ carte d'identité te ñoom boo lay wooy dañ naan war leen nee na nee na femme bi lool lan la ko wax de nee na ngeen wari ma xaalis bi xaa ñan ko war a xaalis bi si si numéro femme bi ñoom ñoo koy récupérer ji mais ñoom duñu mës a nangoo wax ak ñun nanguwuñu wax ak ñun ak leen femme bi la ñuy wax bu ñu waxee ñoom ñoo koy interroger insécurité li ñuy wax fii si Thiès kaay mu ngi fi totalement parce que lii kun ko kun ko wax te kii ko da nga naan c'est pas mais am na enlèvement boo nga xamante ni jigéenu wérut la toll si cinq mois jël na taxi ñëw na di ñëw fukki buntu pour pour pour pour si docteur Ndiaye pour def si écho xaalis ba mu waroon def écho ñu boole ko yóbbu ko yóbbu yóbbu ko xamuñu fu ko yóbbu man ba ma leen mujjee waat ki ma jot ba mu waxee ba pare laa ne ko c'est pas vrai yow doo kebe parce que mënut ta yoroo sama loxo ñu maye ko si kër gi ma nekk si kër gi di ma yow doo kebe mu xamal ma ne ma man maa ngi ni sonn naa ma ne ko doo kebe déedéet du yow. mais nag on verra amul problème ma ne ko fu ngeen toll mu ne ma ñu ngi si yoonu Kaolack bi kon loo du dëgg ki kii kii sàcc du la wax ne la maa ngi si yoon bii di dem kon dañuy bëgg a réeral na naan ñu ngi fii ñu ngi fii mais bàyyi nañ lépp. si loxol yàlla ak yonent bi te yal na nu ko yàlla niital te ñii fu nu jëm yal na leen yàlla lëndëmal ba lu nu bëgg di caay-caay jëmale ko si réew mii nga xam ne si la nu ne yàlla bu leen ci yàlla far mukk mukk mukk si këru àddina am nañ seen remerciement ba ngeen nu woowee fii pour mën ñoo permettre yéen waa def it ñu ngi am seen cant di am seen ngërëm bu baax vraiment kontaan nañ bu doon yéen mën na leen see bañ a fekk wala kenn duñ dégg Cheikh Anta Diop kon ñu ngi lay dégg kon tey la mës a gis vraiment vraiment kontaan nañ si yéen bu baax parce que li bu leen neexoon du ngeen ko def da ngeen toog fa ngeen toog du ngeen di woo du ñu si ñu waaw te biñ jaaxle yéen la njëkk a xalaat te biñ